am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jégleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt ngeen ci ànd ak al ustaaz abdallah baaba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wala mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi nuy topp ci seen émission al fatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana docteur Mouhammad Ahmad Lo hafidahullahu waraa tey àllarba ñetti fan ci weeru ndeyu koor muy rajab mille quatre cent quarante quatre tombeek vingt cinq janvier deux mille vingt trois ñu leen di ziyaar yéen ñu ni topp ci émission Al Fatawa bi ñu ànd ak Cheikhana ak docteur Mouhamed Ahmed Lo moo xam ñu nekk biir Sénégal moo xam ñu nekk ci biir Afrique gépp moo xam ñu nekk ci Europe moo xam ñu ni topp ci Amérique moo xam ñu ni topp ci Asie moo xam ñu ni topp ci Australie moo xam ñu ni topp ci feneen ci adduna bi ñu ngi topp ci rajo Leeral FM bi ci Louga wala ca Keppaar ga ca Kaolack wala Salaam ba ca Mbacké wala Leeral ba ca Ziguinchor wala Leeral ba ca podo ñu ngi topp ci Dermalu officiel wala ñu ngi topp ci groupe soppey fatawa docteur Mouhamed Ahmed Lo wala ci dégg diine xam diine xam lu sa diine ci Baol Média ak yeneen réseaux sociaux yëpp ci YouTube beeg Facebook beeg moo xam ci TikTok bi la moo xam ci bërëb yi ñu mën a topp yëpp wala bërëb yi ñuy topp yëpp ñaan yàlla subhaanahu wa taala dafal ñu tawfiix dafal leen ko ñu jox xanaa mu ibbi ñu doogay jukki lenn li fi rot ci laaj bi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 sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmaina amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy déglu ak fekk fu ngeen mën di nekk ñoo ngi del siwaat ànd ak yéen ci jotaay bii nu bokk mu jotaay al fatawa bi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko Cheikh Abdallah asalaamaaleykum gannaaw wuñ la nuyoo nuyu ki nga dàndal ci xarala gi kon ñu del siwaat rek ci liggéey bi ñu déglu li nga tiim macha allah barakallahu fiikum cheikh bi kii dafay laaj nee na ni ñu dugg ci weeru rajab muy ndey koor dafa am julli bu ñuy wax salaatu ragaib nee na alxamis bu njëkk bi ci guddi gi lan ni moom lañ koy def mu ni ndax loolu dafa wér jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa wala nee na ay bidaa la rek yu nit ñi sos alhamdulilah ci chariatul islam muy njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne jaare na ko ci ay saxaaba ñu tasaare ko lu ñuy tudde salaatu raxaib nekku ci loola kay nit ñi ñoo ko sos bi daala waaye nekkul loo xam ne lu ñuy jaamu yàlla la di ci wut tiyaaba lu mel noonu nag teg fa suuf rek moo ci jaaru wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi soxna si nee na moom majeur na avant mi am dix huit ans mais presque ci dix huit ans ak yooyu daal la tàmbali respecté julli di julli mu ni kon am na ay julli yu bàyyi woon waaye nag moom dafa tàmm di naafila bari na ay naafila yu muy def euh, lu mel ne sunan rawaatib mais ñu ni ko bala ngaa def loola il faut que nga fay julli yi nga bàyyi woon ba nga nekkee xale mu ne ndax loolu noonu la wala déet su fekkee ne noonu la ndax day bàyyi naafile yi ba fay yooya wala na muy def. alhamdulilah soxna soos yi loolu yi mu wax léeg-léeg mu dal lenn ci jigéen ñi ak sox ci góor ñi ndax mën naa majeur te fekk amagul dix-huit ans waaye la ñuy siiwal ci këyit yi ak waxi nit ñi moo di ko am dix-huit ans moom mooy majeur fekk mbir ma nag demewul noona su ko defee. Euh, su amee su gisee baax wala ala kulli xaal nekk na mu kallaf moo xam góor la wala jigéen waaye nekkul di julli ba am dix-huit ans nag door a jàpp ne mi ngi door a nekk mu kallaf kon kooku dañ koy àtte àtte koo xam ne ku xamul woon la loolu baax euh, parents yi seen doom yu góor yi ak yu jigéen yi ñu ngi leen jàngal àtte lislaam yi ci biir kër yi ak ci seen bopp ba ku ci major xam ne majeur nga nga daal di tàmbali nag xam ne yéen ñi seen a toog ala kulli xaal ki nga xam ne dafa xamul woon wala sax xam na waaye daa sàgganoon toog ab diir bu yàgg julliwut saa boo xamee ne dem na ba tàmbali di julli borom bi tabaraka wa taala baaxe ko mu gindiku ci càggante gam nekkoon wala mu gindiku ci réer gam nekkoon daal di tàmbali di def farata yi di julli di def yeneen kooka la weesu woon da koy tuub rek borom bi tabaraka wa taala jéggal ko su ko defee mu continuer di góorgóorlu ci ay jaamu yàllaam di julli julli yooyu muy def bañ a sàgganee jenn farata su noppee di def ay naafila ñu ngi wax ne day def naafila yu bari loolu alhamdulilah lu baax la dana tax tuub gëm tuub borom bi tabaraka wa taala jéggal ko ko dana tax itam mu mën koo fulal ay yiw yoo xam a effacer bu baax a baax a xam ne moo jiitu woon tax mu sàggane woon lenn ci julli naam jazakum jërëjëf cheikhana cheikh bi kii mi ngi tudd Mourtada Diop di wootee Kër Masaar nee na dafa àndoon ak ay xaritam ñu dem ca armeel ya waaye ka fa nekk joxañ leen ab xabru boo xam ni nee na waa sapeur ñoo ko fi indi denc ko ndax dafa laboon ñu ni ko ndax jullee nañ ko mu ni yaakaaru ko ñoom ñu dem jullee ko waaye nag biñ koy jullee ñoom it leerul leen ni jullit la wala du jullit ñu ni ndax loolu ñu def noonu jaadu na wala jaaduwul alhamdulilah jullee ak xabru lu dagan la ci shariatul islam moo xam ndax xabru boobee dañoo sikki sàkk jullee nañ ko walla jullee wuñ ko wala sax wóor na ne jullee nañ ko waaye diw sàngam mii daa bokkul woon ci julli ga mu dikk fekk ñu denc ko ba noppi mu ñëw taxaw ca xabru ba jullee ko loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ko ca kissab soxna su ñuul soose nga xam ne moo doon bale jàkka ja yonent bi alayhi salaatu tukki mu faatu ginnaawam ñu denc ko ca albaqiya bi mu dikkee laajte ñu ne ko moom kat faatu na ba denc nañ ko mu ne dullooni ala qabriha won leen ma fi ngeen ko denc ñu won ko ko mu daal di taxaw alayhi salaatu wasalaam daal di koy jullee radiallahu taala anha kon euh, jullee ab qabru loola moom sharia nangu na ko mu des nag koo nga xam ne daa faatu te ñoom xamuñu ab jullit la wala du jullit xamuñu it ku mu doon ala kulli xaal sañ nañoo tabax ci lu mel noonu sañ nañoo tabax jëf ja ci njort lu not li nga jàpp ne lii moom la war a doon ginnaaw faatu te ci armée li jullit lañ ko denc foofu njort mën naa jàpp ne kii kon ab jullit la su ko defee jullee ga ci koo xam ne jàpp nañ ne jullee wuñ ko woon loolu day daal doon lu baax ndax fardu kifaaya da cay daal di teggi ko su fekkoon ne njuumte ànd am na it bañ jël ko dutub jullit di ko ko ci armée jullit ya ndax xamuñu ku mu doon su boobaa it ñooñee lañ def yaraa ngi nekku ca ndax def nañ la nga xam ne ca la njort note danañ ca am yoolu jullee gañ ko jullee waaye que doon jullit moom loola du ko jëriñ dara borom bi tabaraka wa taala moom lenn lu nekk xam na la fa yell luñ teg ci ay yoxoom tabaraka wa dana xam mam koy tege wallahu taala alam barakallahu fiikum jërëjëf cheikhana bi ki mi ngi tudd Omar Ka di woote bokki jawe nee na su yàlla dimbalee ku nee maanaam yàlla da koo dimbali mu war a am lu mu war a génne asaka te nee na am na ñum dëkkal ñoo xam ni ñoom ñooy añandoo ñooy faral di lekkandoo est-ce que dina dagan ci ñooñu mu joxaal leen ci asakaam wala déet alhamdulilah ñum dëkkal di añandoo ak ñoom ndax mën na leen a jox asaka laaj bi dese naa leer añandoo gi ko indi ndax dañuy ñoo xam ne moom mooy seen kilifa moo leen yore nekk seen baay wala mu nekk seen nga xam ne daal moom lañ am ci kuñ mën a wéeru seenu dépense war ko muy def dépense ba ñu ànd di añandoo ci loolu su fekkee ne loola day mënuñoo lekk asakaam su fekkee nag ay jàmbur lañ yoo xam ne dañoo bokk daje fi béréb rek waxtu añ jotee ñu añ moo xam dañuy cotiser di añ wala sax moo leen di yóbbaale wala keneen di leen waaye wóor na ko ni ñuy ay fuqaraaw lañ yoo xam ne ñu yeyoo asaka lañ ñooñu mën na leen a jox asakaam su fekkee am na ca sikki sàkk nag wala amul lu ko wóor ci ndax ñii war na leen a jox wala warul leen a jox na seet imaam ju maandu wala mu xool fond zakat bi nga xam ne sool mooy itteel mu jël asakaam dugal ko foofa su ko defee imaam joojee wala fonds zakat boobee dana jël asaka ja jox ko ña nga xam ne ñii la lislaam wax ne ñoom ñoo ko yeewoo su ko defee jaanam wàcc wallahu taala alam macha allah jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi soxna si nee na këram day dafa dend jumaa ji lool nee na euh, déggoon na nag ñu ne jigéen du bëri lu muy dem jumaa moo tax de temps lay dem waaye nee tamit yeesa am na ñoo xam ni sàpp yi dafay fees ba presque ci buntu këram la ñuy jullee ndax kon mën naa nekk ci biir këram noonu walla ci buntu këram julli ànd ak imaam bi wala du dagan ci moom alhamdulilah soxna soos yi dend ak jumaa ji lañ koy wax mooy lim dégg ñu ne ko jigéen du bari lu muy dem jumaa loolu wérut yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na laa tamna'u ima allah bu leen tere jaami yàlla yi jigéen ñi yàlla yi kon jigéen ji ci boppam ak dem julli jéem loo am tuyaaba la su jullee ci këram nag am na ak julli la ca des mooy su fekkee ne ji day fees ba nit ñi di jullee ci bitti moom ginnaaw julli permettre nañ ko mu man koo def na jiima góor góor lu koy dem ci waxtu teel balaa jàkka ja fees mu jullee ci biir jàkka ja loolu mooy li gën su fekkee am na gàllankoor wala dara nag ba yeex a dem ba jàkka ji fees ba sàpp yi ñëw ba ci buntu këram su xoolee ci sàpp yi doon sàpp jigéen ci buntu kër bi mën naa nekk ci seen biir daal di jullee fa yëf ya toll su fekkee nag ay góor a sàppe ci bunt bi mu wóor ko nu munu fa sàppe te am na foo xam ne ci biir këram su fa toogee di julli mi ngi dégg di gis la nit ñuy def su ko defee bu boobaa mën naa jullee foofa te du yàq dara ci ak julleem wallahu taala alam baarakallahu fiikum jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi kii mi ngi tudd Ahmed Yacine Ahmed Yacine Lo nee na dafa am sëriñub daara la waaye am na dëkkandoo ci koñ bi boo xam ne moom euh, mooy ñooñu di fóot yor seeni machine di fóotal nit ñi seeni mbàjjeeg yu demee noonu mu am fa nag ay mbàjj yu yàgg lool yoo xam ne def na at ñaari at seeni boroom jël siwuñ ko waaja jël ca may leen ñoom waa daara ja mu ni ndax loolu dina dagal ñu jëfandikoo ko wala déet alhamdulillah ki nga xam ne nit daa ñëw di ko liggéeyloo dara ci yéeréem bàyyi ko ko ba mu yàgg ko ba yàgg ci gi dayoo ba mu nopp ci njortam ne moom mii kat naru koo jël si su boobaa bu ko jëlee sarax ko daara ja def na lu jaadu la ca des rek mooy saabu bu ñëwee moom na ko fay su ko defee sarax sa moom mu féetewoo ko daara ja nag moom amuñu ci benn jafe-jafe ñoom ginnaaw dañ leen a rek nañ jël suñu mbàjj ñoom daal di jox donga yi ñu jëriñoo wallahu taala alam jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na dégg na ñu ni daawatul mazlumi mustajaaba wala laa turad ñaanu ku nu tooñ yàlla du ko delloo mu ni koo xam ni biñ la tooñee nga profité ca ñaan ñaanaloo ki la tooñ de waaye danga ngaa profité sa soxla bopp nga ñaan ko fa mu ne ndax loolu day wane ne dinañ ko nangu wala la nangu rek mooy kala tooñ ñaan ñu ngi koy ñaanal. alhamdulilah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy dénk Muaaz Jabal dem koy yónni Yaman. ba mu ko digalee ne ko boo demee jàngal leen tawxiid te jàngal leen farata te seen alal yi nga jël ca ñuy woomal jox ko ña nga xam ne dañoo ñàkk daf caa teg ne ko wattaqi daawata almazlumi fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab na ragal tooñ nit kat ñaanu ka nga tooñ amul kiiraay digganteem ak boroomam kon xadis bi siyaaq bi mu rote mooy ki nga tooñ mu ñaan yàlla la ñaan yàlla boobu yi day dal ka tooñ xadis bi loolu lay wax waaye waxut leneen bu fekkee nag lu aju ci nit ki bu ñaanee ñu nangu ak ñaanam loola waxuma la xadis waaye alquran al karim ci boppam ñëw na ci borom bi tabaraka wa taala ne wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daan nee na ud'uuni astajib lakum borom bi tabaraka wa taala nee na jaam yi suñ ma la laajee fu leen fu ma leen toll ci dégg seeni ñaan ak lu ko nuru nee leen ku leen jege laa te ma ñaan ma may la ci yeneen laay mu ne ñaan leen ma ma may leen kooku yeneen borom bi tabaraka wa moo ko wax moo tax jërul ñuy sonn ci xadis ba yonent bi alayhi di waxee lu jëm ci ñaan yàlla ki nga xam ne dañ koo tooñ loolu bokkul ak sa soxla yi nga xam ne moom nga am bëgg koo ñaan yooyu am na yeneen i tegsam teg si sharia yi di su ko jaawale bu ci jóg am lu muy wax lu nekk rek nañ ko jëmale ca loola rawatina su fekkee ne la nga ca bëgg a dugal moom daa am teg ci boppam mu ngoog wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na atte photographe lay laaj ndax dagan na wala déet ndax dafa gis xadis boo xam ni dafa mel ne yàlla dafay rëbb ñi nga xam ni ñi ngi foto mu ni nag ndax loolu dina dagan même boo ci jubloo daawa def ay vidéo ngir daawa ak yu demee noonu yëpp nga xam ne photo la dina dagan wala du dagan alhamdulilah ak tey nataal bi dañ cee wax wax ba tey ci fatawa am na fatawa yu bëri jàll yoo xam ne ci loolu lay wax waaye rek wàññiwul dara ñu junjaat rek euh, jàngale nangu na baamtu photo bi su fekkee ne dafa doon am ak ruux ba noppi am jëmm loola dafa xaraam li am ruux am ak jëmm mooy lu mel ne yi ñu natt nataal yu mel noonu moom dafa xaraam mutlaqan eh, bu fekkee ne nag dafa nekk loo xam ne amulug ruux kooku dafa dagan moom itam garab yeeg ndox meeg asamaan si yu mel noonu dese ne ko loola dara nekku ci su fekkee nag dafa am ak ruux ba noppi amul jëmm foofu la ñuy xoole lan moo ko tax a jóg ak yan moo ca mën a juddoo waaye su dul loolu loola moom la ca cosaan bokkul ak lañuy ñuy tere waaye nag dara mën na ca wàlli si loo xam ne dana tax ñu tere ko nataal ci photographe ci yu bees la bokk lu amul woon ci jamono yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam waaye amoon na lu nu roog moom mooy nit ña daanañ nataal dara ci ndimo muy ab tiise eh, def ca loo xam ne lu dund la léeg-léeg xas naa am ci rido yi umul muminina Aïcha radiallahu taala anha ñu desee ci ay jim ba ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam disee xar kanamam soppiku mu ne ko lii nag mu ne ko xaw naa yàq sama julli ji Aïcha daal di koy jël rido yooyee dagg ko mu def ko ay njeganaay kon photographe amul woon waaye amoon na lu xaw moom muy nataal yu mel noonu nga xam ne benn dañ koy ràbb ràbbaale ko ci mu ne ca walla dañuy jël loxo dessiné ko mu nekk ca kooku amul jëmm waaye am na ruux lii nga xam ne mooy photographe nag dañuy wax ne am na yoo xam ne bu ca muccee mën naa des rek di nekk lu dagan ba ca jiitu mooy ñu ragal ca lëntum bokkaale mën caa juddoo ndax kat am na ay photo yoo xam ne daanaka nit ñi ay xëram lañ koy def ndax su fekkee am na photo boo wét boo xam ne jëmm jëcca ne dafa am pas-pas bu nit fas ci moom ba àgg na ci saa xëyee da ciy barkeelu moo xam nu mu cay barkeeloo nag ndax day jël loxoom raay ca teg ci jéem wala mu teg ci dënnam wala nu mu koy doxale wala sax mu jël fatu boobu takk ko ci ab dënnam fekk lam ci jublu mooy barke wala kaaraange su fekkee kii ngay foto wala foto bii nga yor ragal nga ne loola mën na caa juddoo su boobaa teg ca suuf mooy daal di jaadu du dagan àq yàlla kenn du ko jaxase ak àqi mbindeef su ko defee beneen ba ca des mooy bu dee lu jëm ci wàllu luy feeñal awra moo xam góor la moo xam jigéen la kenn ku ci ni sa awra xam nañ fa mu yem su fekkee ak photo day ñëw di feeñal lu wër te feeñ su boobaa day daal di doon lu xaram beneen bi ci des day dell ci li ñu tudde al jubluwaay ya su fekkee kii nataal ci boppam yor photographe am di foto li nekk ci xelam mooy li yàlla bind dama bëgg bind lu mel ne moom loolu na ci jublu noonu ci jubluwaayam loola jubluwaay boobu daganut donte nag mënut a def loo xam ne day nuroog li yàlla def tey moom deful dara ndax appareil bi ci boppam moom mooy def jàpp naa ne photographe moom mucc na ci lu mel noonu ndax euh, nit ki ci boppam desin wut ci loxoom bay wax ne damaa def lu mel ni yàlla def ndax machine bi ci boppam moo def su ko defee la yàlla bind kay loolu la génne wane ab nataalam waaye di caagi ni li ñu tudd mu baaxaatu xalqillah yi ma nuróoleeg yàlla loolu amut foofu ala kulli xaal su fekkee yooyu yëpp mucc na ci dañuy wax ne la ciy cosaan kon mooy mu dagan comme mboolem yi nga xam ne dañ koo daganal rek waaye nag euh, jullit bi lu muy def lu nekk daa war a lu am njariñ su fekkee koto bi dafa am lu ko tax a jóg loo xam ne lu farataw la mu ne koto passeport koto carte d'identité wala ay document yoo xam ne dañ ko bëgg a documenté ba mën koo firndeel bu wér comme projet yi nga xam ne dañ koy teg ci loxo nit moo xam lu muy séddale la moo xam lu muy tabax la moo xam loo xam ne photo mënu caa ñàkk mu photo ko ngir wéral ko ca kanam ñam ko seqal nga xam ne muy ñëw déplacé gis ko su boobaa loola moom day def ci cosaan la rek xëy doon loo xam ne lu dagan la wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah cheikh bi soxna si nee na dafa dégg ñu ni jigéen su jaaree ci kanamu kuy julli da yàq julleem ndax loolu ci góor bu jaaree ci kanamu góor rek la wala même bu jaaree ci kanamu jigéen moroomam wala sax ci kanamu képp kuy julli rek moom bu dee xale la alhamdulilah mu koy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni jigéen ji mu jaaree ci kanamu kuy julli julli ga dog na euh, loolu nag xajjalewu ci góor ak jigéen kay julli moo góor la moo xam jigéen la su fekkee ne jigéen jaar na ci kanamam maanaam ci diggante fi muy teg ab jéem di sujjóot ak fi mu taxaw su fa jaaree kon ak julleem yàqu ba mu tàmbaliwaat loolu nag buñ koy wax jigéen ju majeur moo tax ñu koy wax jigéen joo xam ne àgg na ci nekk mu kallaf su jaaree ci kanam kuy julli kooku lañ wax waaye waxuñu xale bu jaar ci kanam kuy julli borom laaj bi maa ngi tegu muy wax ne ko am doomam ju ndaw joo xam ne amagul sax lu mat menn at waaye moom day julli léeg-léeg muy jaar ci kanamam ñu xamal ko ne loola moom yàqul ak julli ndax xale bu ndaw la waaye nag jigéen de dem ba majeur moo tax ñuy wax wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana cheikh bi soxna si nee na ndax dina dagan jigéen laaj boroom këram ni ko soxna yi koo ci gën a bëgg laaj ko ni ko sa soxna yi ko ci gën a bëgg ndax dina dagan ñoom ñu laaj seen jëkkër yi loolu ak bu leen ko laajee tamit est-ce que ñoom it war nañ leen koo wax wala déet alhamdulilah boroom laaj boobu di laaj ndax nit ki wala jigéen ji soñ naa laaj boroom këram kan la gën a bëgg ci ay soxnaam ma ngay waxaale sax ci biir laaj ba ne su fekkee ne borom kur bi daa wàcc seen soxna sa bam dem moom mi fi des ndax sañ na koo laaj man mi fi des te nga wàcc ba mu dem koo ci gën a wala koo ci gën woon bëgg ala kulli xaal loolu lañ fay wax rek moo di fàttali waxi sunu borom tabaraka wa taala يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم borom bi tabaraka wa taala neen yéen ñi gëm yàlla wattandiku leen di laaj ay laaj yoo xam ne suñ leen tontoo mën ngeen caa jëlee aw métit ku naqar ba faaw wala fii dañuy wax ne niitu ku koy def boo tudd leen la lakkale moom bu nekkee ci këram di sëy moo aw jëm wala ay jëm na jéem góor góorgóorlu ba lii tax jëmbat ak mbëggeel ak suuxat ko mu di ca taxaw bis bu nekk su ko defee nag di am yaakaar ci ne moom ñii day fii ñu ko teg teguñu fa kenn fu ko féete kaw tey am ca loola waaye laaj bi mën naa indi leneen ndax jamono yoo xam ne euh, laaj na ko yow mii koo gën a bëgg ci sa soxna yi mu tontu ko ne ko diw sàngam te kooka du moom loolee mën na koo andil yan boo xam ne la mu doon liggéey sax mën naa yàqu rawatina nag soxna soo xam ne da ko yor ba fase ko ba mu dem mu wëlbati ko di ko laaj nag maa ngi moom koo ci gën a bëgg su ko nee kooka di laa gën a bëgg xanaa yàlla dogal mu tàggoo rek kooka moom mbiram yàqu na moo tax yu mel noonu la ñuy orienté nit ñi mooy bu ko kenn laaj bu ko kenn laaj su fekkee nag kooka te it maanaam def ci am ci mbokk yi ak góor ñi ñoo xam ne li ñu tuddee diplomatie ci wàllu sëy moom amuñu ko maanaam mën naa jàpp ne soo ko laajee su la waxee leneen lu dul loola daa fen te su boobaa day daal di jàpp ne am na ci bakkaar su ko defee boo ko laajee ca digg ba lay jaar rek ne ko xappit ne la diw laa gën a bëgg su ko defee loola mën naa indi ab jafe-jafe bu rëy lu dul su fekkee nag soxna ya dañoo doon yoo xam ne ñu defaru lañ ba yooyu ci boppam du leen déranger yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko ko laaj kan moo la gënal ci góor ñi mu ne Abubakar Siddiq radiyallahu taala an ñu ku la gënal ci jigéen ñi sax leen wax mu ne leen Aïcha ñu ne ko ci góor ñi nag mu ne leen baayam loola nag euh, taxul mu yàq dara nag ci këram teewut xam nañ ko soxna yi xam nañ ko wéyaale ko xam ne kii gënal ko teewut alayhi salaatu wasalaam ku maandu la koo xam ne di jox àqi jàmbur du ko jox kenn moo tax bañ demee ba am ci soxna yi ko xaw a mage muy sawda radiyallahu taala anha dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man de sama ay lu ma ko bëggoon a féetale Aïcha radiallahu taala anha yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangul ko loola ala kulli xaal biir kër moom la fa nekk mooy laaj na am xel laaj na ak teey laaj na ak laamisoo laaj na wax jooy wax ju ne balaa yëkkatiku nga peese ko xool ko ndeyjoor càmmooñ kaw suuf door koo wax rawatina bu dee wax joo xam dafa jëm ci sëy bi ci boppam lu ma a teeye la naam waffaqakum albaari jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na ndax dina dagan ci ñaari way dencante kenn ku nekk di jéem a luññutu ak di xool sa portable moroom alhamdulilah sëy day la ko lal mooy confiance maanaam wóoloonte saa boo xamee ne kóolute jóge na fa sëy boo jàpp ne ëpp sëy bu neex moom nekkatu fa su fekkee ne jigéen ji li ku góor ki di gis ci ay jikkoom ak i doxiinam ak i junjam ak i duggam ak i génnam tax na dem na ba wóolootu ko ba su wéetee ko téléphone gaaw di xool ba xam lu ca nekk ku jigéen ka itam ñàkk kóolute ci borom këram ba tax na ay duggam ki génnam ak ay téléphone ak ay wuyoom ak ay wooteem dara doyatu ko ci ba tax saabu jekkoo ak téléphone gaaw di vérifier ba xam lu ca nekk sooy boo ñu xam ne ñoom ñaar la ñuy tudde kóolute jóge na ci seenub sëy su ca xasee jóge nag jàppal ne sëy buy rëng-rëngi moom tàmbali na ndax sëy moom la ko lal mooy kóolute dem ba nit ki ñu xam ko xamin woo xam ne ci diineem ak doxiinam ak melokaanam wóor na leen ne moom ay caaxaan jëm siwul ci moom moom it jëmul ci ay caaxaan lu mel noona su demee ba am mm, téléphone nit ka doo ci am soxla moo xam ko góor ki la moo xam ko jigéen ki la moo tax bépp jéego bépp jéego boo xam ne nit ki mën na koo dox ngir di gën a am confiance ci kam nekkal sooy boobu di ko dox su ko wóoroon ne sax am na ay yëf yu muy gis yoo xam ne lënt lay nuru walla ay caaxaan lay nuru bu nga ko ko jàppee mukk ne jàpp ne lii moom maa xamut lu mu doon dëgg dëgg dëgg waaye suñ ma ko firiloon danaa xam lu mu waaye kii ma nekkal moom yu mel ni lii ma doon jot loolu moom mënta nekk ba keroog muy teg bëtam nag ci loo xam ne lu jéggi dayo la loo xam ne mënee su koo taw yi su boobaa nag ñu xam ne leneen la la cay des rek mooy wëlbati xool ba xam ndax lii njuumte la wala daa doon jikko ala kulli xaal ku ci nekk daal mën ngay dogal sa moroom ay ngànt yoo xam ne loo mën a gis ci moom it du tee nga mën koo muñal continuer sëy ba di continuer ngeen di ko saafara ndànk-ndànk ba ba muy teguwaat ci aw day la ñuy dénkaane ndax itam loolu mooy li ci ab sëy wallahu taala alam jazakum bi kii nee na dafa ñëw di julli si bi mu ñëwee imam bi di kabar euh, pour euh, jiite gee te moom julleeguloon timis mu ànd ak imam bi yéeme timis bi imam bi amee ñetti rakka moom mu toog sëlmal doo koy jóg kabbaraat pour loolu nekk premier rakkaam ci gée muy quatrième quatrième rakkay imam bi mu ni ndax noonu mu def dagan na wala déet alhamdulilah ki ñëw fekk imam li julli gée te fekk moom daa julleegul timis am na ñaari tànn yoo xam ne bu ko ci neex mën na ko tànn bu ko neexee mu kabbar ak moom julli timis comme noonu mu ko waxee su imaam jógee dem ci ñeenteel ba moom mu toog taay sëlmal su fekkee mën naa dabaat dara nag ci la imaam di julli mu ñëw àndaat ak moom bu imaam sëlmalee mu door a àggale julli géem loolu mooy benn choix bi beneen tànn ga ca des mooy mu ñëw ànd ak imaam julli gée ba sëlmal su ko defee daal di jóg fay waxtu timisam Euh, bu ci nekk am na lu ca nekk mooy boobu yi ma mujje wax moo gën a néew ak juuyoo ci borom xam-xam yi maanaam ñëw julli ba noppi daal di fay timis kooku gën a néew ak juuyoo waaye bale ca des nga xam ne dafa ñëw julli timisam ba noppi ñëw àndaat ak imaam kooku may na ko julli mbooloo yaari yoon te la chaque ne julli timis bii moom bi mu koy fay julli bu ko julli mbooloo waaye moom rek moo ko julli kon bu mu ci def bu nekk rek am na lu ca nekk ci xeetu ngëneel lu war a sax mënees koo tànn waaye ala kulli xaal lu mu ca def rek lu baax la wallahu taala alam baraka allahu fiikum wa jazakum allahu xayran waffaqakum allahu lima fihi alxayr wassalah ci toon fii leeri cheikhana yàlla na la yàlla sàmmal Euh, yàlla defal la tawfiq ak taysir defal ñu ko defal ko mboolem jullit kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yemandi seen émission Al Fatawa ba beneen ay bis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.